Okur abi. Tık tık Wah wah boy, bahan majalah ni boy. Boy, bahan majalah ni boy. Howdy world. mais man man xam nga ma gardien bi gardien bi na